السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبقي أه، لينك موي نيانو تام خريط أه، تام خريط نك بون كو واخي تي لي ني تام دانيي جاباني موي جور بيغا خامتاني فلا نيت ني دي ليكي تيري موي جانين يك فالين وي خالي يي اك تام صاح با تي ماغ ني ميغا تاجبون مانام دي تي تاجبون موي مبير مو خام نك جوليت داف mais tax ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy wax lan moo waral ñaan bi ana njëriñu ñaan bi waaye après deuxième vidéo bi insha allah rabbi ñu def ñaan bi benn par ben. nga xam ne ku ko dégg ku ne da ko mën a defal sa bopp ñaan bi nag mbokk yi lépp lu doomu aadama di sàkku ak lu mu mënti doon doomu aadama bi lu muy sàkku lu mu mënti doon rek na ko ci ñaan te ni may waxee insha allah day nekk par exemple tey di neuvième jour bi ñuy lekkee cere yeeg yu ni mel kon yowmul ashura moy ci suba si moy buñu lekke lekkee cere yi ba ci suba si man nga ko def fofu ñaan gi nak mbokk yi dañuy faral di wax ni moment bi sax lañuy récupérer carnet yi nga xamanteni ni defoon nañ ko ci jëf waaye joxat la carnet bu bes kon ku ne war nga ci mëna ñaan borom bi allah subhanahu wa taala bépp rëcc rëcc bo xamanteni ne defoon nga ko ci année précédente manam année bi sunu borom jéggal lako waye nak nag soppi la defal la yiw boole la ci xaj bi dem déwén waaye bépp projet nag boo am moo xam projet tukki la moo xam ki bëgg borom kër moo xam ki bëgg soxna moo xam moo xam moo xam ça dépend lépp loo soxla bay mu tax ngay sol sa dal di dem ci sëriñ sax di ko ñaani ji mbokk yi bu la neexee profitel ci jour suba bi insha allahu rabbi nga ñaan ñaan bi ñaan ci borom bi yàlla subhanahu wa taala mu defal la ko doo déplacé wu doo ci yàq xaalis doo dem fenn te sunu borom dana la ko nangul insha allah kon deuxième partie bi ñuy ñëw def ko benn par benn bu ko defee ku nekk mën ko defal boppam euh, kon dangay def fatiha ba mu jeex muy bismillahi rahmaani rahim ba wala daalina amin après nga def allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim bu ko defee nag nga doog a indi ñaan bi muy xasbiyallahu wa ni'mal wakiilu نعم المولى والنعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النثير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى wa ni'man nasiru donc non nga koy defé 70 fois bu jexé nga tek ci ñaan bi nak di ñew 7 fois ñaan bu mujj bi di subhanallahi mil al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar rida وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير وصلى الله عليه ala sayidina muhammadin xayri xalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajmaina nga def ko sept fois ñaan sa soxla ok gannaaw nag ba yooyu jàllee am na si nag dog boo xamante ni mënees na koo def incha allahu rabbi bépp aajo tamit boo am nga bëgg suñu borom euh, defal la ko ci kàttanam ci dooleem ci mën-mënam euh, incha allahu rabbi boo ko defee non seulement suñu borom mën na laa jéggal say rëcc rëcc jéggal say bàkkaar mais ajo nag bu mu mënti doon boo ko ci ñaanee suñu borom dana la ko nangul mais nag benn ajo lay nekk cest à que yaay xool benn aajo boo xam am nga ko aajo bu la yitteel lool nga bëgg suñu borom moom defal la ko laataa at bee dellu si déwén incha allahu rabbi soo ko defee da gis ni sunu borom dana la ko nangul insha allahu rabbi léegi nag mooy boo defee ñaari rakka ba pare nga jàng su lu neex da ngay def istighfar mille neuf cent quarante sept muy mille neuf cent fois soo paree nga def ci bismillah rahmaani rahim muy basmala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم nga def ko 111 fois 111 fois so paré nga def quraishin 79 fois def ikhlas ñett yoon falakh ñett yoon nasi ñett yoon tejé ko salaatu ala nabi ñaan aajo mais nak benn aajo lay nekk yaa xool benn aajo. nga ñaan ko ci insha allah rabbi sunu borom mën naa def balaa waxtu wee jot ba nga ko ñaanee woon sunu borom mën naa def insha allah rabbi nga gis aajo boobu sotti euh, ñaan nag ni ma koy waxee saa su ne ñaan la tudd borom bi yàlla subhanahu wa taala kese mooy maye yoon la buñ ci ñaan te yoon la boo xam ni yaakaaruma nit dana ci ñaan borom bi yàlla subhanahu wa taala gàntul ko ñaan boobu waaw yaakaaruma ko benn yoon ndax lu ñu def la ñun defati ko wax dëgg yàlla mais daal xoolal aajo bu la yitteel lool nga ñaan ko ci incha allahu rabbi salaamaaleykum wa rahmatullah